ñu ci ànd ak yéen ba tey ci tomb bi nga xam ne mooy alxayruuna fil islaam ñi gën ci lislaam ñi yàlla tànn yenent bi tànn leen sharia tànn leen lislaam tànn leen nit ñi ñoo gën ci nit ñi ñu ngi woon ci juróom benneelu mbooloo bi wala juróom benneelu nit ki ñi nga xam ne ñoom ñoo gën ñooy tànn téef ci li yàlla bind tey juróom ñaareel bi mooy xayrukum man at'ama taam wa radda salaam ki yàlla yónni woon ci ñun nee na ñi gën ci yéen mooy ñii joxe ñam ñii joxe lekk wa yut'imuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum li ñoom de dañoo yor seeni ndab rekk ubbi seeni buntu kër di joxe lekk di jox miskin di jox ku ñàkk di jox faqiir di jox jaam te kuñ ciy jox rek dañ naan la li wajihillaa yàlla rekk a tax bul ko siiwal bul ma tagg bul yuuxu bul wax dara jëlal te xam na kat lii yàllaay kese kese la dara raxu ci borom bi ne yonent bi ne ñii ñooy ñi gën ci nit ñi ñooy ñii lexale ñam wa yut imuuna taam dañuy joxe ñam allahu akbar foo leen fekk rek mooy li nekk seen loxo dañ koy joxe laaj na yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa rasulallah diina ji lu ci gën mu ne tutimu taam wa taqra'u salaam ala arafta wa man taarif diina ji lu ci gën mu ne ngay joxe lekk di nuyoo koo xam ak koo xamut diina ji ndeke doomu aadama yi tiyaaba yu bari ñu ngi leen di raw ci joxe lekk ci saraxe ci dimbalante ak tey jafe-jafe yi nu mu bëree ni mu mettee nga xam ne léeg-léeg di nga gis kër goo xam ne ndékki ñu ayuñu reeruñu ñu jiite kër ga ña ngi ca mbedd yooyu taxawaalu di ut ku leen dimbali di ut la yóbbu ca gone ya mbokk julli yi ku dëkk ak ñu mel nii cib koñ wallahi sa àjjana taxaw na wallahi buntu tiyaaba ubbeeku na dimbali leen yónnee leen lekk ci waxtu woo ko yoree bu nekkee sa loxo bul ko denc joxeel yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokkul ci ñun kuy fanaanoo deppaasam suba fekk mbokkam mu ngi ci wetam reerut bokkul ci ñun kuy fanaanoo dépassam suba fekk sa dëkkandoo mu ngi sa wet moom reerut lay sa min naa la wax bokkul ci ñun mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax bokkoo ci ñun bokkoo ci ñun ku mu wax bokkoo ci jullit bokkoo ci jullit yi ku mu wax doo dugg aljanna wallahi doo dugg aljanna coow lay bari rek ndax moom yàllaa koy yónni yàllaa koy waxloo du wax ci bànneeku bànneexu bakkanam maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi gën ci nit ñi mooy man at ama taam waaye wara a salaam ak di fay nuyoo bokk na tey ci musiba yiñ dal du ñu fay nuyoo te fay nuyoo farata la yàlla tabaaraka wa taala wax na ci alqur alquran bu ñu leen nuyoo nuyoo bu rafet delloo leen ko fa izaa xuyitum bi taxiya fa ruddu la wax delloo leen kon ndigal la yàlla joxe kon nuyoo sunna la waaye fay nuyoo farata la suñ la waxee asalaamu aleykum yow booy delloo da ngay wax waaleykum salaam wa rahmatullah suñ la waxee asalaamualeykum wa rahmatullah booy delloo da ngay wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu suñ la waxee asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sooy delloo nga wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu nga delloo lépp loolu mooy delloo nuyoo delloo bu rafet ñu bàyyi nuyoo aada yi bàyyi nuyoo bidaa yi bàyyi nuyoo bandi bàyyi nuyoo saay-saay si di nuyoo nuyoo lislaam di nuyoo nuyoo jullit di nuyoo nuyoo bi nga xam ne moom lañu ñu yonent bi alayhi salaatu salaam indil te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu loolu mooy ab nuyoo jullit noonu la ab jullit di nuyoo ndax bàyyi aadama keroog ba ko yàlla bindee ci aljanna da ko ne demal nga gis mbooloo malaaka yële nga nuyu leen nga déglu lu luñ lay delloo lu ma leen di wax mu ne leen asalaamualeykum malaaka yi ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yàlla ne ko loolu mooy sa nuyoo yaag sa xeet kon ñi gën ci nit ñi mooy ñuy joxe ñam ak di di fay nuyoo yàlla nañ ci yàlla boole asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.